actualité du jour mbas mi la ñu koy dooree tey nag ci àllarba bi yemook ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre atum 2020 lu toll rek si ñaar fukk ak juróomi doomu aadama ñoom ñoo am jàngoro bi di coronavirus yaatal gi si la jotaayu xibaar lay doon dinañ ci toftal li nga xamante ni rek moom moo di violence ya métti ya am foofule ca diwaanu gine li ñeewal wàllum jongante tànneefu njiitum réew ya gannaaw rek alfa Condé ak naataangoom aba nga xamante ni rek moom la doon jàmm jàmmaarloo jàmmaarloo gu métti nag moom la ñu fa nemmeeku nekkee ni démb ci guddi dinañu ko yaatal si la jotaayu xibaar dinañ wax itam ci mariage homosexuel maanaam rek borom ñaari tur yi nga xamante ne dañoo nekkoon ca diwaanu Mermoz di takk ay sëy ba ñu jàpp rek lu toll ci ñaar fukk ak juróom sa ñoom yóbbu leen fa mbaxana doonee benn ana lan moo ci yees tàq yaatal gi si la jotaayu xibaar lay doon dinañ wax itam ci gàmmu annuel 2020 ginnaaw rek ba geste bu rafet bàyyeekoo ci ki nga xamante ne rek moom moo di xalif général des eh, Mourides di Serigne Mountakha Mbacké ana yan yëkkit eh, yan eh, mbir rek la yëkkiti jagleel ko waa communauté Niassène dinañu ko yaatal si la jotaayu xibaar dinañ wax itam ca AIBD gannaaw rek ba employé yi toogee ñeenti weer képp dong rek gisuñu ay payor ci kanamu nag ña nga xamante ni ñoom ñoo leen jiite rek di waa Turquie Guy Marius Sagna dal si yëkkiti ay kàddu yaatal gi si la jotaayu xibaar lay doon dinañ wax itam ca déguerpissement ba am ca diwaanu rek Tiwaawoon Diacksao tax rek ba mairie ba nag waaye illaa rek askan ga nga xamante ne ñu ngi fay yeewoo nag kii di Serigne Thiam nag dal dina ñaawlu décision bi nga xamante ne rek bàyyeekoo na ca maire ba nag ci diwaanu Tivaouane jak saaw yaatal gis yi la jotaayu xibaar lay doon dinañ wax itam ci génn adduna ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy doomu laayeen yi nag jamono ji ku ci nekk rek yëkkati ay njaal di ko jëbbal nag askanu laayeen nag jamono ji Idrissa Seck Ndamal Kajoor dem na jébbali yan kaddu la ca yëkkati dinañu ko yaatal ba mu yaatu si la jotaayu xibaar dinañ dem ca dëkk Mbose Kumba jigéen Kaolack ndangaan gannaaw rek ca mairie ba la ñuy jubali employé nag dañoo mer boo futu tax rek ñu déposé à peu près préavis de grève jëm rek ci seen wàllu payor dinañ wax itam ci albinos yi ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo di ay puune gannaaw rek ba njàng mi desee tuuti rek ngeen ñu ubbi seeni buntu ñoom nag seen i xelaat ak seen xel yëpp rek dañoo jëm ci rek bodi bi nga xamante moom lañ lañ leen def bët rek ñuy sàkku ay euh, ndimbal ci ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di autorité yi rawatina jëwrin bi ñu dénk wàllum njàng mi ak njàngale mi doomu Sénégal fàttati nañ ko foofule ca diwaanu France na lan moo ko waral ak ku ko faat yëpp dinañu ko yaatal si le jotaayu xibaar dinañ ko jeexale ak benn ponku tàggat yaram képp lay doon wax rek ci ki nga xamante ne euh, moom moo di rek Gris Bordeaux digganteem ak euh, ki nga xamante ne moom moo di rek Gaston Production yan kaddu nag la yëkkati jamono ji moom Gris bu ko defee mbokk yi ñuy seetaan à travers sbtmedia.com ñu dal di buural yile xibaar lii moo nekkoon ponk bu gën a fës yaatal bi ak faram-fàcc bi gannaaw bàkk ba lay doon. aywa mbokk yi ñuy seetaan à travers sbtmedia point com amati nañu mbégte janowaat ak yéen comme ni ñu koy defee bés bu yàlla sàkk ñëw ak yéen euh, ci li nga xamante ni moom moo di actualité du jour maanaam ci wàllum xibaar euh, dooree ko nag ak mbas mi nga xamante ni rek moom moo di jàngoroy coronavirus ba mu duggee nag ci réew réewum Sénégal jàppoon rek ñaari fan euh, ci weeru ba mars atum 2020 ba tey rek jàngoro bi mu ngi gën di wéy di def ay ruumandaatam donte nag jëwrin bi ñu ngàlloo wàllum wér gu yaram Abdoulaye Diouf Sarr ak ñamu àndal ñu ngi def seen kémtulaayu kattan ba xeex ak jàngoro bi di coronavirus waaye nag mu ngi law lawal fii ci réewum euh, Sénégal tax nag euh, bés bu yàlla sàkk ñu def rek situation du jour tey ci àllarba bi yemook euh, ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre atum ci weeru octobre atum 2020 nag lu toll rek ci junne ak ñaar fukk doomu aadama la ñu yóbbu woon rek kër docteur ngir xool ndax am nañ jàngoro bi di coronavirus ñaar fukk ak juróom ya ñoom ñoo ko am nag juróom-ñaar ya jëlee ko ci cas contact juróom ya jëlee jëlee ko ci cas importé foofule ca AIBD juróom ya fukk ak ñett jëlee ko ci cas communautaire ñu wasaare ko ci dëkk yi may bëgg a lim Dakar Plateau dal dina am ñaar Liberté 6 am na ñaar Asalem Grand Médine am na benn Kaolack Ndangaan am na benn Kër Mbay Fall am na benn mbuur am na benn Ouest Foire am na benn Point E am na benn Risatol am na benn Escar Ibam am na benn Yoff am na benn ñaar juróom fukk ak ñett dal leen faj ba ñu wër këng bi delluwaat si seen bu njaboot euh, juróom nag ñu nga ca sawtaas maanaam ci guddi gu bët euh, setagul ba fi mu toll nii nag jàngoro bi mu ngi gën di law ci réew mu Sénégal jëwrin bi ngalloo wàllum wér gu yaram di Abdoulaye Diouf mu ngi ñaax nag askan gi ñu gën a fasantikoo rek ak li nga xamante ne moom moo di rek euh, digle yi te def lépp loo xamante ne rek moom moo di bàyyi tere yi ngir rek xeex ak jàngoro bi di coronavirus ba ñëpp rekk mun a nekk si jàmm ak salaam ay mbokk yi bokkoon comme nu ñu leen ko junjee woon ci boppu xabaar gi dañuy dem nag ca Guinée gannaaw rek ab violence gu métti la ñu fa nemmeeku ci diggante rek takku der yi ak ña nga xamante ni rek ñu nga faytoo ca askan ga gannaaw rek ba ñu defee résultat yi nag publier ko mu doon nag résultat yu njëkk yi jëm ci wàllum jongante fu njiitum réew ca diwaanu Guinée li ñu mel commission électorale nationale indépendante ñu di ko dippee seeni nag ak heure yi nga xamante ni rek dañoo wàccoon ca banlieue nekk ca dëkk bu ñu ñuy wax Conakry rek ci suba euh, ginnaaw ba ñu jàmmarloo jàmmarloo gu metti nag ak militant yi nga xamante ne ñu nga faytoo ci ginnaaw rek Cellou Dalein jàlloo gannaaw rek ba ñuy ñaawlu li nga xamante ne rek moom moo di résultat yi nga xamante ne dañu koo jël rek teg ko ci kaw ki nga xamante ne moom moo di Alpha Condé li ni mel sax ñu am ci ay gaañu gaañu yu ay wa mbokk yi ñu weendi li nga xamante ne moom moo di actualité du jour bokkoon comme ni ñu leen ko junjee woon ci boppu xabaar gi gannaaw rek ba ñu nekkoon ca diwaanu mer Mermoz ñoom rek borom ñaari tur yi di takk ay sey nag li ni mel am na ay mbir yu yees tàq gannaaw ba ñu leen jàppee nag ñu tollu rek ci ñaar fukk ak juróom ñu yóbbu leen nag fa nga xamante ne moom moo di fa mbaxana doone benn jàpp gaaw ci dibeer gi nag ay mariage yoo xamante ne daal dina doy waar nag tey nag ci àllarba bi nag bu ñu sukkandekoo ci suñu naataango yi di waa libération dal dinañu nag publier ay éléments yu bees tàq boobule journal sax ji waa enquête gannaaw rek ba ñu doon auditionné nga xamante ne rek toll nañ ci ñaar fukk ak juróomu homosexuel ñu leen di dippee borom ñaari tur yi nag ñu jàppoon leen gannaaw ba ñu doon célébrer rek ab mariage li ñu xamle sax ci kanamu ëttu layookaay moo di rek dañ leen a invité woon ci sax ñi leen invité woon doon ay góor jigéen ngir rek ñu dem fekkee ji boobule mariage bi nga xamante ne sax ay couple couple ñoom ñoo fa àndoon di def rek nag sudul noonu ñu fekk fa sax ay lubrifiant ay préservatif doy waar euh, lool ñi nga xamante ne sax toll nañ ci ñaar fukk ak juróom ñu ngi leen fekk rek ñu sol ay robe euh, de mariage ak ay zip ki ay muni ay wa ñu wax leneen comme nu ñu leen ko junjee woon ci boppu xabaar gi wax nag ci gàmmu annuel 2020 nag li ni mel gest bu rafet moo bàyyeekoo nag ci ki nga xamante ne moom moo di rek Serigne Mountakha Mbacké nekk ci euh, li nga xamante ne moom moo di rek général de Mourides nag daal dina yëkkati ay kàddoom waaye itam yëkkati ab som som bu duun rek daal di ko jagleel ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Léona Niassène gannaaw ba mu yebalee ab délégation bu mucc ay rek ngir ñu wutali ca na ci la yëkkati nag ab enveloppe boo xamante ni rek daal dina ko jàppale morom mu euh, ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo wax ashadu an la la ilaha illallah ashadu anna muhammadu rasulullah tey waajal rek gàmmo annuel atum mille 2020 di rek euh, yonent bi bi nga xamante ni rek ganne si woon àdduna ñu di ko màggal euh, ci àdduna wërngal këpp ay wa ñu wax leneen bokkoon ñu leen ko junjee woon ci bopp xabaar gi AIBD la ñuy jubali nag gannaaw ba ñu toogee rek ñeenti weer képp dong ñoom waaye nag laalu ñu salaire benn yoon tax rek ba ñu yuuxu wala nag di nga xamante ne nag moom moo di Guy mari Sagna di activiste bi nag dal dina yëkkati ay kaddu di xamle ne rek AIBD moom moo ëpp rek aéroport Léopold Sédar Senghor bu ñu ko xayma lu toll rek ci juróomi yoon tax rek ba ña fay liggéey jamono ji nag ñu nga ca guddi gu bët Euh, seetagul gisuñu payoor nag gisuñu salaire waaye itam gisuñu seen xaalis euh, lu toll rek si ñeenti weer mu ngay euh, naax saay ba tax na rek ñuy yuuxu wëll ci li ni mel nag la rek moom Guy Marius Sagna yëkkati ay kàddu di ci joxe a xelaatam ay aywa boo moytuwul nag waa Tiwaawoon jàk saaw boo moytuwul ñu nga ca guddi gu bët setagul waaye itam dañ leen naa nara yëkkati gannaaw ba ñu naree amal ab déguerpissement nag Serigne Thiam mi nga xamante ne sax dal dina ñaaw lu décision gi nga xamante ne mu ngi bàyyeekoo ca jaraaf bu dëkk boobu la di Tiwaawoon jàk saaw municipalité bu jàk saaw nag ville bu Pikine daal dinañu procéder rek ab déguerpissement maanaam rek di yëkkati ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay mécanicien waaye itam ay ñeneen ñoo xamante ne ñu nga yëngatu ci ay métier ngir rek am lu ñu yóbbu si seen i kër waaye nag li ni mel mu doon ab attitude boo xamante ne mu nga bàyyeekoo ci jaraaf ba doon nag di Serigne um, Thiam mi nga xamante ne rek moom moomee dal dina yëkkati ay kaddu di xamle ne rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo yeewoo ci li ni mel boo sàgganul sax du ñu amati xëy benn yoon gannaaw rek bu ñu leen naree yëkkati mu doon nag mbir moo xamante ne dal dina doy waar gannaaw rek ba ñu yëkkatee ñi nga xamante ne ñoom ñoo faytoo nag ci boobule mbir nag mu doon doon loo xamante ne itam daal dina métti ci xol rawatina rek ña fay yëngatu ngir am lu suukar seeni kafe ay aywa ñu bokkoon nu ñu leen ko junjee woon ci boppu xabaar gi gannaaw rek ba ñu ñàkkee seeni doom fule ca diwaanu Laayeen tax rek ba njaal yi nag di bàyyeekoo fu nekk rek ci réew mu Sénégal Idrissa Seck nag leader bu réew mi Ndamal Kajoor bàyyeekoo nag ca diwaanu Thiès ngir rek jëbbal ay njaalam ñi nga xamante ne nag dañoo ñàkk seeni doom nekk waa Laayeen mu doon mbir moo xam xamante ne daal dina métti eh, ci xool moom Idrissa Seck yëkkati na ay kàddu di bokk ak ñoom tiis gi ak eh, naqar gi gannaaw rek ba mu xamee ne ñoom ñëpp rek ñoo yem ci yàlla waaye itam ñoo yem ci réew ma eh, Sénégal bokk itam ak ñoom tiis gi ak naqar gi jëbbal ay njaalam ñun waa SBT Média itam ñu ngi jébbal suñu njaal ñi nga xamante ne rek dañoo ñàkk seeni bàkkan di doomu waa Laayeen ay wa mbokk yi ñu wéyandi comme ñu leen ko junge woon ci boppu xabaar gi dem nag ca Kaolack ndangaan dëkk Mbose eh, Kumba jigéen jubali nag ca mairie ba employé yi nag jamono ji seeni booli muñukaay dafa fees dell gannaaw rek ba ñu déposé ab préavis vie de grève di xam leen rek Mariama Sarr di jaraaf ba nag daf leen di soofantal waaye itam dafa rek di leen di def nag suddul noonu ba tax na rek ñu mer ba futu jëmale ko rek ci ki nga xamante ne moom moo di Mariama Sarr fonction euh, publique waaye itam euh, jëwrin ba nga xamante ne moom la ñu dënk rek euh, mairie bu diwaanu Kaolack ñoom sax daal dinañ yëkkati ay kaddu di xam leen ne rek ñoom ñoo ñee seen i boolu muñukaay fees na dell ba tax na rek du ko muñalati lu toll ni tar fatar ay ni ay wa mbokk yu ñu wéendi comme nu ñu woon ci bopp xabaar gi wax leneen njàng mi ak njàngale la ñuy wax nag waaye nag bi la yoon albinos yi maanaam rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay puune bu ñu toll ci 98 nag ñoom ñooñu rek ñu ngi ci ay analphabète maanaam nu ñu jàng gannaaw ba ñu leen euh, boddee tax rek bu ñu sukkandekoo ci ki nga xamante ne moom moo di Mouhamadou Bamba Diop nekk président bu association des albinos fii ci diwaanu Sénégal moom moomee dal dina am tiit ak njàqare rek jëmale ko si njàng mi ak njàngale mi rawatina rek bi école di waaj a tijji ay buntam mu tax rek muy dankaafu Mamadou Talla jëwrin bi ñu dénk wàllum njàng mi ak njàngale mi ngir rek mu gestu njaboot ji tey itam dañoo am ab euh, mbir moo xamante ne rek dañoo am seen i àq ak seeni i yoo xamante ne dañu ko war a motal ba mu mot sëkk rawatina si njàng mi ak njàngale mi mu doon kàddu ki nga xamante ne rek moom mooy mu Mouhamadou bàmba Diop nekk euh, président bu association des albinos fii ci diwaanu Sénégal ay waa faata dinañu doomu foofu foofule ca diwaanu France waaye nag bi yoon ab arab moo ko nag soq ay balaki ay ndell ba mu ñàkk bakkanam Alassane Kanté lay wuyoo ay atam toll rek ci ñaar fukk ak ñaar képp dong moom la ñu fa bojju ay bal nag ba mu ñàkk bakkanam ki def nag li ni mel nekk ab maghrébien moom moomee rek dal dina yëkkati ab pusselem mel ni sax dañu doon xulo xulo gu metti nag ba mu amee rek ci di samedi gi jàpp rek ci juróom-benni waxtu ci euh, suba ca gare les Gonesse nekk ca bala d'Oise nekk ca diwaanu Paris bu ñu sukkandekoo nag ci suñu naataango yi di waa Vox Populi ñoom ñoo ko xamle défunt bi sax moom moomee mu nga doon juddoo rek ca mu nga doon yeewoo ca diwaanu France gannaaw ba mu fa juddoo wante nag mu ngi nekk originaire diwaanu Tambacounda gi ñu xamle sax moo di ko kookule dafa màndi woon rek boo xamul fan lay teg tànkam ba tax na rek ba ñu doon xuloo ci la yëkkati pustelem rek daal di ko ko soq ay bale ay ndell ba mu dal di si ñàkk bakkanam laata rek ñu ko yóbbu ca hôpital ga pour rawale ko ay aywa ñu bàyyeekoo ca diwaanu France ñëw fii ci diwaanu Ndakaaru Ndiaye ab boulanger boo xamante ne rek dafa nax ñi nga xamante ne ñoom ñoo faytu ci waa armée bi rek boo tax na rek mu soloon seen i ba te ni nekk rek ab haut gradé bu armée gannaaw rek ba mu amee ab njuuj njaaj bu mot sëkk waaye nag dee fay réussir na rek ngir tromper ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ca diwaanu armée bi bi nag lu toll nag ci eh, ay nit ñu takku rek waaye nag eh, bile yoon dafa mel ni dafa abusé rek ab pouvoir am ci nekk noonu na nekkee woon rek ab chauffeur boo xamante ne rek moo ngi doon wuyoo ci dee fay li ni mel sax daal di tromper rek ñi nga xamante ne moom moo di vigilance su takku der yi ci waa gendarmerie nag ngir rek nekk eh, koo xamante ne rek dafay mun di def ay njuuj njaajam waaye nag mujjul antu gannaaw rek ba ñu ko tegee loxo ba tëj ko rek ñetti weeru kaso yoo xamante ne du euh, sañ a bañ waa ñu weendi li nga xamante ne moom moo di actualité du jour dem nag ca diwaanu fuuta askan ga nag ñu nga yuuxu wëll jëmale ko rek ci gestion bu pays bu chef de l'état Macky Sall mi nga xamante ne rek daf leen a woon ginnaaw ginnaaw rek ba mu fa demee woon waaye nag mobilité bu habilité nekk ca diwaanu foofu foofule rek di euh, Fouta nekkee ni ci dibeer gi ñu génn nag ay manifestant yoo xamante ne rek ñu nga bàyyeekoo ca diwaanu juddu ca ferlo ba nag ñoom ñooñee ñoo accaparé rek yoon bi nga xamante ne moom mooy principal jëm ca uro sugi li ni mel sax ngir réclamer rek électricité maanaam courant ba accès ak éducation ak li nga xamante ne rek moom moo di ay li ni mel tax rek ba ñuy ñaawlu li nga xamante ne rek moom moo di régime Macky Sall Abdoulaye Tall Giro moom moo yoroon seeni kaddu gannaaw ba mu yëkkatee nag ay kaddu ku ci nekk nag dal dina xamle rek ga ñu defee ab bilan bu Sénégal nag bi ñuy waxee rek Sénégal émergent li ni mel dafa mel ni Fuuta moom bokkul ci euh, benn yoon aywa ñu dem ca diwaanu Canada gannaaw rek ba ñu ko condamné lii ni mel nag moom moomee moo faatoon rek Bigué ndaw di wuyoo rek ci Ahmadou mbay mi nga xamante ni rek mu ngi doon sàkku ci Sénégalais yi rek ñu baal ko ak moom moomee sax dal di bu yëkkati war rek lu toll ci juróom juróom juróom fukk ak juróom ñaar ay couteau rek dal di ko bojju ki nga xamante ni moom moo di Bigué Ndao ba mu ñàkk bakkanam li ni mel sax moom Mamadou Mbaye nag dal dina reconnaître ne rek moo poignardé à mort yaay bi nga xamante ne moom moo ko jural ay euh, doomam li ni mel tax rek euh, mu ñu doon résidé wu ci rek euh, Edmond nekk ca diwaanu kanada ci atum 2018 ba muy plaidé nag moom moomee dal dina rek nangu ne moom moo nekk coupable gannaaw ba ñu ko accusé ab deuxième degré ci li nga xamante ne rek moom moo di cour des blancs ca nekk ca diwaanu Rennes nag mu ñu sukkandekoo ci version yi nga xamante ne mu ngi bàyyeeko ci li ni nag ñu ngi xamle ne rek moom maître Mbaye moom ngi rek di eh, sakku gannaaw rek ba mu brisé ay couteau yu sàkkoon rek teg ko eh, ci ko biige ba mu ñàkk bakkanam ay aywa mbokk yi ñu wax leneen tiis ak naqar nag moom moo dal ci kow rek woykat yi may bëgg a lim ku ci mel ni Aline Kassé ak Ndey Kassé gannaaw rek ba ñu nekkee ci tiis ak naqar gi ñàkk nag seen waajur bu jigéen moom moomee sax mu ngi ñàkk bakkanam ci dimanche bi ñu génn rek foofule ca hôpital Fann mu nekk ab nouvelle bu triste rek gannaaw ba mu dalee ci kaw woykat yu Sénégal yi ku ci mel ni Aline Kassé ak rek Ndey Kassé ñun waa sbtmedia.com ñu leen di ñaan rek ñu am xoli muñ gannaaw ba nga ñàkkee seen waajur mu doon lu métti ay wangoone nduur dal dina àddu rek ci audit bi nga xamante ne dal dinañu ko def waa SODAF di xamle ne rek njiital réew mi Macky Sall bu amutoon ak jafe-jafe ak Youssou Ndour di def benn audit jëmale ko rek ci SODAF diggante Macky Sall nag njiitum réew mi ak ki nga xamante ne moom moo di Youssou ma jigéen Ndour nag li ni mel daalu tuñu taal benn yoon tax rek ba njiitum réew mi Macky Sall di sàkku rek ci président bu conseil administration bu SODAF nag ngir rek rek ñu daal di leen auditionné tax rek ba Ngoné Ndour noom nekk nii démb mu daal di yëkkati ay kaddu di xam leen rek bu nekkoon ne njiitum réew mi Macky Sall rataxoon na ak ki nga xamante ne moom moo di rek Youssou Ndour amaan na sax du mos a jël ay rek audition jëmale ko ci waa SODAV mi nga xamante ne rek Youssou ma jigéen Ndour nag moom moo ko doon gérer bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci le quotidien li mel sax maître Ali Bathily daal dina yëkkati ay kaddu directeur général bu SODAV Macky Sall moom moom moomee daal dina dugg bu baax a baax nag ci li nga xamante ne rek moom moo di décision ngir rek auditionné waa SODAF li ni mel dinañu ko toppandi ñun waa SBT média point comme bu am rek lépp loo xamante ne moom moo di ay information daal di ko jukkin ñu ñuy seetaan ay wa ndooy bàyyi dal dina yëkkati ay kaddu kaddu yu doy waar nag gannaaw ba la Madior Diouf moom moomee dal di woon rek yëkkati ay kaddu kaddu yoo xamante ne nag ku ko dégg dar sa gémmiñ moom Ndella Madior Diouf nag ba mu doon jàkkaarloo ak suñu naataango yi nag di bisu ak Big Taf ci émission bi di confrontation ci la yëkkati ay kàddu di xamle ne rek moom dafa bugg góor te itam bu amee jëkkër rek day tëdd ak moom chaque jour bés bu yàlla sàkk dal dina nag yëkkati ay kaddu moom ndooy baan di ko rafetlu bu baax a baax di xamle ne rek nag jigéen dafa war a bugg góor mu doon ay kàddu ndooy euh, baan aywa ñu jeexalee ko ak ponk bii di tàggat yaram wax ci làmb képp dong ci diggante nag Gris Bordeaux Lac de Guiers 2 ñi nga xamante ne sax première face à face bi ñu ngi ko amalee euh, foofule rek euh, ca diwaanu États-Unis nag combat bi nga xamante ne nag ay amateur ñoom ñoo ko doon rêvé ci diggante nag Gris Bordeaux bu waa ak Lac de Guiers 2 bu waalo mi nga xamante sax dal dinañu préciser ab nouveau xamante ne nag moom moo financé boobule combat li ni mel sax mu yëkkati ab xaalis bu duun su suñu koppar rek jagleel ko ñaari mbër yooyu rek waa Tigre de Fass dal di ci kontaan waaye itam ñi nga xamante ñoom ñoo di waa waalo ba tax na rek ñu demoon fa nga xamante ne rek moo di ca ah, biti réew ca États-Unis dal di def rek seen face à face bu njëkk bi bu ñu sukkandekoo nag ci information yi nga xamante ne mu ngi bàyyeekoo ci suñu naataango bi di Lamine Samba nekk ca TFM moom moomee dal dina rek confier ci maison bi nga xamante ne rek la ñu baax ngir rek mun a taxawal li ni mel waaye itam bu ñu sukkandekoo ci information yi nag animateur yi vedette bi nag nekk ci émission euh, jongante nag entamé na ay négociation yu duun nag jëmale ko ci li ni mel mu ngi xewe woon nag ci altine gi ñu weesu environ 12 heures lamin Samba nag daal di nag exprimé wu ci point bi nga xamante ne rek euh, lac de guerre 2 euh, nga xamante ne sax ay pour parler lañu ñu ñoom ñooñee rek faciliter la combat bi nga xamante ne moo war a dox ci digganteem ak bu sukkandekoo si suñu naataango yi di suñu làmb ay aywa mbokk yi ñu seetaan à travers sbt média point com lii lañ leen indiloon ci li nga xamante ne moom moo di actualité du jours nan leen des leen di wéy ak programme sbt média point com cant ak ngërëm ñëwen na leen des leen di wéy ak suñu programme jaa ngeen jëf ñu yendu jàmm wa ilaa ñu fanaan jàmm ci moment bi ngeen di seetaan bile vidéo